Père Zora célébrité la Père lu ko ku ko jàngal li mu doon tey ba tax boo taxawee ci télé bi xam ne kii professionnel la doomu yaay Gamou Fall ak Matar Diop ñu naan ko Cheikh Tidiane Diop le meilleur scénariste au monde oh. ku ne xam na ni bu mardi masaan jot daaray Kocc bu génnee boo génnee ci mbedd mi doo gis ko taxawaalu mm-hmm. un scénariste buy jouer film bu am sens ñëpp di ci concentré wu bu sa xol laabirul doo ko def il faut nga baax doon yàllay kese loo bind mu dugg ci biir doomu aadama yi pour ñu mën a toog seetaan ko c'est très important te bu ñu paree ñu jariñu ci Cheikh Tidiane Diop mënu ma ko fay ndax ki tax nga gën koo wër te gën da koo war a tarbiyu di ko ñaanal yal na ko yàlla xaraa àjjana fi daw si mhm. yal na ko Seydina Mouhamed teeru fu mu jugee Cheikh Tidiane Diop li mu produire ci doomu aadama dafa bari ndax nit kenn du ko lekk kenn du ko naan hmm. nit njëriñ lañ koy doyee nit booy dund te amuloo njëriñ yaag mala yi yéen a yem hmm. kon nag na nit baax ko mën a dimbali nga ko alal ji boo deewee fi nga koy bay hmm. tey boo génnee ci dëkk bi château yee kër yi ngay gis yëpp boo laajtee borom kër ga ka moomoon dem na yàgg na kon nañ leen profité ci suñu àddina bi di dimbalante te yàlla tax te nit nag sauvegarder son honneur muy góor bul nangu kenn ku la ñàkkal fayda jigéen bul nangu kenn ku la ñàkkal parce que jigéen ñun ñooy suñu jamaa ñooñu ay jamaa nañu tey Sénégal bu neexee suñu yaayee tax mais am na ci yaay yoo xam ne tey jii bu ñu dekk waatoon dinañ ruus parce que seen toogaay doon woon toogaayu xale yi léegi ni ñu toogee ndax dañ daan muñu sama papa da daan fóotal sama yaay di ko dàkkandeel di ko gome di ko paase bu sama papa dee génn mu cuur mu suur yëre yi làmb poos yi ndax ba tul su bëtee mu ñawaat ko sama papa solo mun mënu ko mbay tubaar fàkkaale demal ak jàpp dikk ak jàmm ak salaam xanaa mun am na góor ñoo xam ne seen papa nañu gën a bëgg seen yaay xam nga lu hmm. parce que seen ndey moo leen di wan loo xam ne buñ ko teggeeti boo amee ndey joo xam dafa concentré wu ci sa baay nga di ko gis hmm, hmm. boo dee góoru ca telmeen bu xam àddina da ngay téye sa baay waay dëgg waay ndax ndey ju baax day bëmax doomam ci baayam ndey ju baax day bëmax doomam ci baayam nga soxna si soxna su doy waar ma ni waaw parce que day def ay gestes yoo xam ni. Mm-hmm. sama xol da ciy sedd. Oh. su ma dee dem fenn mu ñëw naa fi sama yëre ñu suur ko li ma su bala maa yeewu bu jug xam nga topp sama ginnaaw dinaa fi la parce que dara feesatul sama bët pambay mm-hmm. bu dee jigéen bu ma neexee na ma yàlla baal ma am ci milliardaire su ma neexee ma am ci ki gën a jongama mais dootul jamono jii léegi jamono dafa bouleversé xam nga jamono ban nañ toll axru zaman mujj jamono ku mën a xool jigéen gu baax gu la bëgg nga dimbali ko nekk ak moom te yàlla tax jaamu ci suñu borom ndax loolu la yàlla di fay ëllëg waaye fekk pare yore ay milliards yu dul jeex mu conditionné la nga bàyyi say mbokk bàyyi sa famille yaa may dégg nekk ci lu ñàkk fayda di dox boobu góor la ñuy ñaan yàlla yàlla bu bu mu dal benn góor mais góor nag na am fulla hmm. ba jigéen gu ko téye mu hmm. téye ko jigéen gu ko oyofal tamit mu teg ko parce que sinon njaboot gu yàqu rek lay indi. njaboot gu yàqu rek lay indi yal nañ ci yàlla musal te góor ñi itam ñu muñ. Hmm. ku ci muñulul sa jabar ba topp ko sa xol dina tàng sa doom yàqu te bu ëllëgee dinaan kii doomu diw la booy julee la yàlla sa njaboot yàlla barkeel leen parce que borom kër du iñaana njabootam borom kër du tëkku njabootam. borom kër jaboot bu la yàlla may da nga ko war a jël valoriser ko ba ëllëg boo ko xoolee xam ne sama doom ci kat ginnaaw yàlla jontu la ma yàlla santoon ci moom mu dugal ko alxuraan mu jàng valoriser ko ba mu am personnalité ba mën a dem wuti boppam ba amal boppam loolu mooy fierté papa ci maanaam doom xam nga moo tax euh, suñu jamono ji méttiwul na nit ñi delluwaat rek te dal ah. nit ñi métti waaw <laughs>